amoon débat bi donc dañuy daal di ñëw ci euh, <laughs> Mbacké Ndiaye Mbacké Ndiaye tey dañ lay bàyyi ak sunu chroniqueur yi ñu daal di waxtaan ak yow doyen Abdourahmane waaye ko am la mais dañ Mbacké Ndiaye da nga si ah, xanaa ñu présenté waat moom. vice président section urbaine bu Kaolack. avant sax moo nekkoon aussi ex coordinateur. coordinateur ONG Jamra islamique bu Mame Matar Gueye lu tax tamit nga duggoon fa nekk quatrième président de la fédération urbaine du PDS à Kaolack waaw donc ñu bàyyi leen moom. non yaa ngi tàmbali ba benn moom déjà déjà non dafa mel ni daa namm débat bi tey jii waaye du ci dara ñu dem attends attends xaaral rek jàmbur nga nekkoon di militer. Ah. ONG boobu noonu. Ah. léegi ñu nga jékki-jékki ñu dégg la nga ne da nga am ay jafe-jafe ak ñoom. Ah. yàggul tuuti tamit nga génn ci média yi. di sànni xeer. li ma lay laaj mooy yow lu tax nga génn Jamra ak yow lu tax bu nga génnee Jamra tamit demoo rek topp sa yoon. te xam ne peut-être que ñoom lu ñuy xeex lu noble la nga di leen sànni xeer man loolu laa lay laaj. kon yow da gis ne dama leen sànni xeer. non sànni nga leen xeer. waaw d'abord euh, li may ci question bu njëkk bi <laughs> laay tàmbalee li tax ma génn ONG Jamra maanaam euh, Jamra dañ ne c'est une organisation islamique quand on parle d'islamique il y a islam yaa dégg te dem naa ba un certain moment man je me suis compte que ñii nii li ñuy xeex y a y a et y rien de mais si effectivement dara yàlla amu ci amul dara yàlla. foo ko teg non maanaam eh, ONG islamique yi nekk Sénégal man nga permettre ma mu dugal yi bis mu amoon temps ba gisee ak le président joman dama koy wax mu dissoudre lépp ànd sàmm jikko yi Jamra lépp da koy dissoudre da ko war a tas parce que dara yàlla taxul dem yii dañ koo créé woon pour jëlee fi Macky Sall surtout euh, ànd sàmm jikko yi bi ñu koy créé. Mhm. benn bii benn bii lañ amoon mooy que Macky na fi jógee yow déjà gis nga bi liy jaalee ñaata góor jigéen ñooy ñëw Sénégal ah ñaata góor jigéen lañ invité yoo xam ne Mélenchon Mélenchon ñëw na fi premier ministre européen bi ñëw na fi te ñooñu ñëpp sont ay gay lañ te mhm. la taxaw ne la je suis le premier législateur euh, de en France xam nga xam ñëpp xam nañ ne moom ni mu mel ci wàllum góor jigéen da leen di jàppale kii taxaw dalal ko naan ko l'homosexualité est tolérée ce qui est archi faux ñi doon wax les gens qui se proclamaient ay ay di xeexal diine. Mhm. kenn nangul taxaw wax ci. au contraire dañu défendre waaj. Eh non da ngay déglu non attends non attends non attends attends non attends attends Mame Matar wax na ci. waaw Mame wax na ci. mais moom ba tey la moom wax na ci non ci ci laay ci laay ci laay ci non dénoncé na ko def na ko point de point de presse taxaw taxaw na taxaw na wax loolu yëpp def na ko. contrairement à ñële kenn waxuti ci. ñële maanaam. mooy ànd sàmm ji koy yeneen ONG islamique yi fi nekk Sénégal di oote wu turu l'islam te dañ koy mbubboo dañ koy politiser. Mm-hmm. maanaam jamono lu tax ma jóge fa bokk na ci manque de considération bi. parce que doomu aadama amul lu dul boppam. Mm-hmm. man nommé nañ ma fa def ma coordinateur pendant 3 mois 4 mois kenn mësta jël téléphone oo ma téléphone comprendre mm-hmm. kenn benn groupe lañ ma boole woon ma nekk ca. bon ma dem ba gis ne groupe bii nii ak li ñuy oote woo ak li ñuy wax ci plateau télévision dafa bokkul ma ci groupe bi laa njëkk a quitté y avait des journalistes yoo xam ne ñu ngi ci biir groupe lan ko wax am na ay yoo xam ne ñu ngi ci biir comprendre nga mhm. ñu ngi ci biir bi ma quitté sa am na ci kenn koo xam ne walf walf la nekk il m'a appelé au téléphone ma non waroo mën a dem parce que war nga mën a toog parce que lii ñuy xeex ni ñun ñëpp la lañ koy xeexal te dañoo bëgg waa ji jóge fi waa ji jóge fi mooy kan mooy Macky Sall jóge fi mhm. donc ma ne aha kon donc ñii dañoo utiliser lii pour làqu ci lii pour waa ji jëlee jugee fii. non non attends attends attends non attends attends. mais da ngay bàyyi nag foog ñuy dugal question amul ndax ah. foofu lu ma lu tax mën na la maa ngi jéegul dama ne peut-être que jamono ñoom foofu. dama ah. lay dollil beneen question nga eggali sa sa ah. sa analyse peut-être que ñoom. Mm-hmm. jamono bu ñuy xeex pour Macky Sall jóge fi c'est parce que dañoo waxoon ne Macky dafa am ay. agenda LGBT bi waaw waaw moo tax peut-être que est-ce que nekkul looloo taxoon ñu doon xeex loolu laal bëgg wax quoi. ndax a taxoon ñuy xeex pour Macky Sall jóge fi. <laughs> non loolu kese peut-être na am mu bokk ci mais loolu rek taxutoon quoi. Mm-hmm. est-ce que comprendre boo ma daggee <laughs> dafay xaw a kale maanaam le journaliste la il m'a appelé ne ma da war a toog. Mm-hmm. ma ne ko non non toog. parce que man daa am loo xam ne dama koo gëm man je suis soufi soufi yanke laa murit laa te taalibe laa. Mm-hmm. d'ailleurs li gën a tax ma poussé démissionné Jamra mooy bi euh, le professeur le soi-disant professeur là ah, a Euh, Cheikh Omar Diagne bi mu génnee taxaw mel ni luy caricature sëñ bi daal am wax jum ci wax wax ju ñàkk a teggin ma euh, bon euh, ki yoroon maanaam wàllum cellule yi bi ONG Jamra je l'ai appelé naqarlu ko laajal kii même kii oo naa ko boobu mu ngi nekk ci benn site ñaawlu loolu mais ma gis ne Mame Makhtar à ma grande surprise au lieu que moom mu dénoncé Cheikh Omar Diagne dérive yi mu doon wax ci ku tedd mais dénoncé ko day mel ni lu koy encouragé ci sama gisin bokk ci laalaan oo man jotuma leen ma def sama vidéo yónnee ko benn femme bi nekkoon yes actu ne ko banaa démission maa ngi seen carte seen batterie yooyu dama koy delawaat te yàlla tax parce liñ doon xeex man bi ma demee ba gis ne lii yàlla taxul seen intérêt bopp leen fa bàyyi parce que booy xool ma Jamra Mame Matar rek ngay gis ah xam nga ci keneen wax ma koo ci xam xam na ci keneen. tey question yi moom pour yow yow yow yaa moom question mais mais yow lu tax yow bu nga constaté loolu si biir groupe bi. Ah. yow. jugoo. Ah. Ah. dem seeti waxtaan ak moom ci loolu. non moom boobu maa ngi Kaolack man man Kaolack ak Dakar dafa sori. non mais mu jaral la booy booy mëne benn combat même bu dee ginnaaw Kaolack wala Fuuta fu mu gën a sore bu la jaralee combat bi te askan taxoon la jóg ak xeex yenni ah. mais oto yaa ngi fi horaire yaa ngi fi nga dem seeti ko pour Mamataar warutoon mun a gis nga Mamataar bi mu demee ba comprendre bi mu demee ba comprendre xam nga dafa trop instant yi comprendre xam na ne ñoom ñooñu ñoom ñi sëkk ñi ñu bëri da woon langaamu ci ñoom di ko xeexle seen i intérêt leen ñor da leen di leen di clash ba ñooñu ëlbatiku ko clashaat ko entre ça veut dire que ànd bi moo dëgguwutoon te yàlla taxutoon benn bii lañ amoon les islamiques yi yi benn bii lañ amoon que la na waa ji fi na ñuy ñëw toog te ils l'ont ils l'ont réussi dama ñëw ba en boo tuddee Macky ñu ne la góor jigéen nga boo ko défendre yaa ngi défendre góor jigéen ku votel Macky Sall votel nga góor jigéen ku jàppale Macky jàppale nga góor jigéen li may wax ne nag man je ne pas un partisan de Macky Sall je gisoo fa sa bopp na ëpp na 3 mois. toog naa fa woo ma. fa sa bi ñuy woote yow gisoo ko moo tax daal nga nga génn ma bàyyi ma bàyyi. parce que boo nee dara islaam nekku fa tamit. Euh, da nga boo dindee li danga fa war a teg li waa certes. maam dañ naan. nit bu nekkee ci jafe-jafe da nga ko war a taxaw man à un dama tombé dama feebaroon feebaroon naa du feebar feebar bu rëy wala leneen ak leneen mm-hmm. te bi ma feebaree ñàkku moon lu ma jëndee ordonnance parce que man je travaille je gagne ma vie dignement mm-hmm. damay liggéey kii xam na ma mm-hmm. mais dama tëdd o oh, le coordinateur là kii yor wàllum cellule yi jam raw j'ai pas appelé ma matar parce que man comme j'étais dans l'armée daa am IR e, nu may doxee ci IRG e doo tëb dans l'armée doo tëb le première classe du tëb wax ak le door a wax ak moom bu commande di sottiwul nga door a gis colonel bi boo tëbee rek dugg ci bureau colonel bi dalay dàq te mun na la bindal punition nga dem tëddi donc man esprit boobu laay doxee donc munu moon tëb même bi ngay wax bi ma constaté loolu munu moon tëb waxtaan ak maam Matar mhm. ki ma tëb waxtaan il s'appelait à l'époque su ma fàttewul Cheikh Ahmadou Bamba la tuddoon daal mais fàtt naa tur bi woo naa ko ne ko munu maa mën a ko man damaa a a dem ville retiré ji xaalis. Mhm. comprendre te mënuma dem ci banque bi toog di xaar mhm. pour sama tuug jot ma retiré xaalis ma jëndee dama bëggoon bu fekkee yor nga fa 10 000 nga envoyé ma ko ma jëndi samay garab. Mhm. mu ne ma waaw may ma ma waxtaan ak maam Matar loolu la ma wax. ñu toog lu yàgg ma rappelé waat ko téléphone mu ne ma waaw may ma ci kanam moo waat ko jëlul moo waat ko jëlul ma bàyyi. ci laa fexe ba jóg dem sama compte retiré xaalis dem jëndi samay garab ñu tëdd waa léegi yow nga nga ne nga ne ngay xeexal. nga mais yow li nga fi wax nii ak. Euh, ça n'a rien loolu loolu entre parenthèse la da bëgguma ko woon wax sax mais xam nga da nga mën a. boo mais kon ngemboo mer xam nga ko olof di waxee. non parce que ña ki woote woote. considération nga tax nga bàyyi. waaw. waaw. d'accord loolu laa loolu laa la bëgg a dugg Jamra. waaw ah. est-ce que yow da nga pour su ma feebaree ñu faj ma wala ah, leneen leneen loolu ba ma foofu. Ah. parce que man naka jekk man góor jigéen ci boppam laa mënut a digérer sama àdduna bu awee nii na la laay aw man dama leen doon gis ci réseaux sociaux yi ñuy def ñuy kaas loolu dañ ko war a criminaliser dafi war a jóge man mënuma leen supporter léegi nag ma contacter leen fexe ba waxtaan ak ñoom gis ne ñoom li ñuy xeex nii lu baax la à l'époque comprendre nga ma fexe ba contacter leen buñ bi ñu waxtaan ak ñoom buñ ñëw euh, indi fa cellule bi nommé ma ordinateur comprendre nga. Mhm. bañ ko moo tax nga dugg. waaw looloo ma dugaloon parce que seen combat loolu la woon ma engagé si ñoom mais bi ma demee te dañ doon wax le mot islam déggoo booy booy xool ONG organisation islamique lañ wax. donc man je croyais que am na islam ci biir mais amul islam y a que la politique là-bas. waaw ah, la. je parce que ma Matar Gueye loo ko mënti waxal. doo ko mënti waxal man man selon man sam li ma xam ci moom. Ah. nit la boo xamante ni man bu ma nekkee xale ba léegi maa ngi koy gis. même man waaw te ma xam ci moom. mooy mooy ku baax la jullit la. dama day défendre. waaw dama ne principe yoo xamante ne principe islamique. yu mu mën yu mu ko ma ne ku baax la jullit la loolu koy seede ci moom. mais dama ne ONG bi ci boppam. man nag je suis libre. naa waaw man waaw man am naa am naa am naa liberté. taxaw ne la lii ma gis ni ñuy doxalee nii dara yàlla amu ci y a rien de Dieu ma génn ci. am na ñu ngi posé avenir coalition Diomaye avenir PDS la. non PDS instant yi booy xool c' un troupeau boo xam ne sans berger la man nag bu euh, mu permettez waxuma au du PDS parce que du porte parole PDS. man militant laa rek je milite pour le parti. mais quatrième vice-président mais mais je ne vais pas parler au nom du PDS du ma wax ci turu PDS. mais damay wax en tant que militant damay wax en tant que citoyen. PDS fooy xool ni ma ko mën a gisee mooy c'est un troupeau sans berger. gitt goo xam ne la guy dox kenn omatu leen nu leen neex la nag yi di jaar kii day jaar fi kii day jaar te loolu xamul lu muy mujjee. nit ñi ñooy jékki jékki-jékki jàpp ci benn nag waa na bi ko moom. nag bi ko moom xam nga loolu fu jëm. Mm-hmm. tasaaroo la jëm. parce que munuñ munoo munoo di ko gis nga euh, Sénégal dañoo war a mën a euh, daa am ay y' a trop de laisser aller gis nga nekk à l' extérieur di pilote parti. loolu moo war a mën a jeex Sénégal. boo bëggee un boo bëggee mener un combat politique dangay wàcc sur le terrain politique sur la scène politique nga mener nga mener say activité boo demee nag ba bëggatoo teg amatoo fitu dem nga bàyyi. loolu daa mel ni euh, Karim moom moom wax ji kañ. Mm-hmm. bu demee ba bëggatul te mënatul. na bàyyi PDS am na ay kàngam yu fa nekk yoo xam ne war nañ mën a diriger parti bi. mais kàngam yooyu bu ñu jëngu la parce que yéen di Karim yéen a ko toppoon. vraiment moom fi mu toog la toog ah yéen yéen si topp rek de di. Karim waaw mais xam nga xam nga tamit xam nga tamit d'une part eh, bëgg dafa garaaw. Ah, comme waaw non du ma du ma ne ñëpp. du ma personne du ma du ma du ma wax en général. damay ah, wax waaw dafa am ñoo xam du Karim sax mais Ablaye Wade lañ bëgg man Ablaye Wade bi muy bi muy bi muy campagne ay quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize bon certes defu ma politique mais ci ñu yoon daw ci kaw oto bi di ko topp ci laa bokkoon ndax sama papa il était responsable euh, du PDS à Koungheul ba 99 ni mu laa yàlla na ko yàlla yërëm démb la am 25 ans j'en profite pour ñaanal ko yàlla yërëm ko xale ko aljana comprendre mhm. donc PDS affaire de booy xool ni affaire de affaire de ngor moo ma fa bàyyi damaa gore nii laa seexoon na moom loolu ñu looloo fa bàyyi ju bëree bëri waaw loolu tôt ou tard dina jëm. te année ngeen topp benn nit. da ngeen gore li nga wax dëgg la yéen da ngeen a gore. 2016 <laughs> ba léegi. waaw nekk doar ngeen topp ko yéen kenn gënu koo gore ci seen politique. surtout ñu nekk PDS di toog di xaar waa ji toll fële di tweeter di bind ay Facebook. ñu dem ba en dernier moment mu ne nañ soutenir coalition Diomaye maanaam li li paa bi doon wax sànq rek doyen bi nee na maanaam euh, politique dafa xaw a doy waar te wax na lu am solo. dama koy fekk ci loolu maanaam en politique ce que les gens mooy naa ni ni démocrate ni patriote ni républicain xam nga lan moo am en politique. y a ce qui gagne et ce qui perd amul démocrate amul république amul patriote yooyu ay moolo yoo xam ne pour utiliser ko pour mun a accéder au pouvoir kese y rien amul loolu amul patriotisme yow qu'est-ce lan la ñu tuddee patriotisme un patriote c'est ki mooy quelqu'un qui a un engagement patriotique envers sa patrie non ñii doon réclamer patriote nii la ñu nii nii la ñu xeexee pour patrie man je suis mille fois plus patriote que ñoom. fan nga je me suis engagé dans l' pour défendre mais ni nga engagé na tamit ci ñoom ñu ñoo mais ñii mais yoo xam ne ci koo ci invité télé xuloog moom coowog moom tey boo fi tegoon kenn koo xam ne yàlla dimbaliwu ko mu am yenn niveau yi bu ma commencé wax dañu xuloo maa koy amaana émission bi dem ñoom xuloo xaste kese loolu mooy patriotisme dugal ci réseaux sociaux yi ñi dàq saaga récemment maa ngi dégg Ousmane Sonko mu ne dina comment dire dina le mot là sàmm sàpp régulariser les réseaux sociaux parce que li ci nekk yooyu mais tey bu ñu wax saaga nii saaga bu ñu wax saaga rek. avant avant patriotisme non mais de non non non déglu déglu déglu non non non non non. Ah, bi gis nga la politique de gis nga le Pastef là. Mhm. il faisait tout sauf la politique bi Pastef ñëwee dans la scène politique. ci la yii yëpp am. lu mas am ci politique man maa ngi koy door a gis neenaa naa la Abdoulaye Wade bi muy campagne ki ñu doon daw ci oto bi di ci topp ci laa bokkoon mhm. mais li ma gis politique bii nii bi passé fi ñëwee fii mosuma mosuma koo gis non ci opposition laa la kaloo bële yi lu ñu doon def nag loolu la mosuma koo gis ci opposition kaloo ah, bële yi lu ñu doon def la mosuma koo gis ci opposition gis nañ fi saagakat président taxaw ñu ñun Abdoulaye Wade ak mu àndal tax année blanche am fii bi si biir Sénégal te te te Ousmane Sonko opposé na ba nekk moog Diomaye au pouvoir année blanche amul Sénégal. mais li am Sénégal yow li jot a dee ci Sénégal liñ jot a yàq ci Sénégal mos nañ ko yàq. liñ liñ fi jot a wax kilifa diine da mos nañ mos nga gis politique non no non déglu attends mos nga gis mos nga gis ñu wax ko mos nga gis nit taxaw ne diw moo ma gënal sama nday ak sama baay mos nga ko gis ci politique non waxee léegi ne amour moo tax ngeen toog ba tey di xaar Karim Wade waaw mais amour war message lay wax amour war amour boobu moo tax 96 ba tey amour warta ànd ak amour la kooku am ku nekk nañ ko nangul amour non non non amour warta ànd ak folie ñii li ñu def ni du du du politique du amatu dara ndof la. naka nga ko naka nga mën a tuddee ñoom ni ñuy doxalee. Mm, régime bu bees bii nii. Mm. ndax nee du politique ni ñuy doxalee du politique ma ne kon li ñuy def nii yow noo ko. xam nga Ousmane Sonko il n'est pas un homme politique c'est un activiste politique. ku fippu la dafa nekkoon fenn ñu daaxu ko mu fippu créé parti am jóg ñëw fekk Ousmane Sonko nit ku dama koy nangu noo déglul. attends <laughs> Ousmane Sonko daa am loo xam dama koy nangul. Mhm. dafa ñëw au Sénégal dafa ñëw ci seen politique. fekk kon nangu nga ne ku am chance la. waaw mais dama koy nangul kay. ñëpp mm-hmm. lëg loo ko bañ bañ da nga koy seddal nopp yi na tamit. comprendre nga il est chance ku am chance la. parce que mm-hmm. dafa ñëw ci politique ñëw fekk un terrain vide. terrain vide nag joueur lu mu nul nul boo ko joxee bal à 35 mètres mu dugal ko ci biir kaay yi bi fi ñëw fekk fi kenn boobu xalifa eh, am na fu ñu ko dugal bu mënatul wax. Mm-hmm. Karim fële Idi daw na casé wu pour sauver ay ay boppam y avait amutoon ku fi nekk. moom il était le ñoo fekk une génération boo xam ne elle est tellement inconsciente loo wax ñu daw ah mais si mais génération bi nii tey ba bëggoon nga def benn vidéo am waxu dof yoo ci wax ay gis booy di ko selfie loo wax ñu topp la est-ce que waxu dof yi ngeen ngeen jàppee jeune patriote yi tam moo dem tey ba nax ñu bari nan ko ay dof lañu amuñu lii. naa la wax benn affaire naa la dama dégg kii naan. Euh, est-ce que loolu moo nax gars yu bari. sànq dama dégg kii naan Diomaye le peuple sénégalais ñoo ko fal nii nii. Mhm. xam nga ne Diomaye. Mhm. Euh, vote émotif moo non mais ñi non attends vote émotif moo ko fal gars yi dañoo xam nga lu ñu sonal ñun Sénégal loo xam ne pour te dire que li ma lay wax nii. Mm. xam nga saa dañ ko enregistré fii dina jamono doxaat ba ngay pourtant Mbacke Ndiaye waxoon na ma mm. man su ma sañoon sama yéene mooy mu avancé. yéen li ma leen a buy dem ba dooni télé. Mm. yaa ngi dégg mm-hmm. mais vu situation ni mu demee nii. avancement du am développement du am. xam nga moo tax. ay na na fi jógee moo ñu sonal na dem rek na Ablaye Wade lii la woon. Ablaye Wade tey Sénégal bu toolee fii nay ci lu baax laa wax de c'est grâce à Ablaye Wade mais nag doguma la ah, non déglu rek attends li nga wax nii dama lay dog xamul tax. Mm. parce que tamit li nga wax nii dafa ëpp quoi. non vraiment. parce que loolu quoi qu'on puisse dire. Ah. Ah. ko dàqoon mm-hmm. ñu da doon politique. Mm-hmm. créer Pastef. Mm-hmm. dàquñ ko ba pare mu créer Pastef. doo xaar xaar dafa dañoo créer Pastef ba pare ba commencé militer déglu ma rek après si la si la defee déclaration. buñ ko buñ ko am jafe-jafe ak le président Macky Sall ñu ñu ñu soog ko dàq ci poste bu mu nekkoon. buñ ko dàqutoon mais il faut également dire tamit ne Ousmane Sonko bu muy politique dafa am benn vision bu mu jaay sénégalais yi. dafa ñëw benn benn livre bu tudd solution. mu ne dafa am solution pour no problème yaa ngi dégg fu may waxee de ce fait si biir loolu. mu mu teg léegi nga solution bi. waaw mais dama ne loolu du débat bi débat bi mooy que si biir loolu. déglu ma rek si biir loolu mu ñëw gëmloo ñu ne am nañ benn projet. boo xamante ni ay intellectuel sénégalais yu bari ñoo ci liggéey. projet boobu ñi ko gëm. liir nañ ko gëstu nañ ko jàpp nañ ni loolu doy na leen. yow liir nga projet si loolu. waaw liir naa projet bi si kaw loolu. si lañ toppee Ousmane Sonko il faut dire la vérité loolu moo tax gars yi topp ko toppuñ ko si lëndëm wala ñu topp ko ci ay waxi kese wala si ay waxi dox waxu kese lañ ko toppee kay si topp si benn posture la bu mu bu mu taxawee posture boo xamante ne rek ba mu pare posture révolutionnaire la parce que Ousmane Sonko quoi qu'on puisse dire des hommes politiques d'avant. lan moo ko lan moo ko différencier oui la différence différencier mooy benn. Uh-huh. c'est un gars boo xamante ne bu mu ñëwee il a prôné la patrie. yaa ngi dégg au détriment. maanaam du comment dirais du du du du serviable à la France. yaa ngi dégg parce que ñun ñu doon gis lu ñu si bari c'était des gens yoo xamante ni France lañ fi nekkaloon wala bu ñu fi nekkaloon. yaa ngi bëgg a orienté si jiw mu dama lay expliqué dama parce que boo ñëwee da ngay indiwaat problème France ak Sénégal. non non problème France dama la bëgg wax lu tax ñu topp Ousmane Sonko. lu tax ñu topp ko c'est parce que daf ñu jaay benn projet boo xamante ni. projet nationaliste. yaa ngi dégg léegi baax na baaxut loolu dinañ ci xam dara mais au moins il faut accepter que ne rek gëmloo gars yi fi daf ñu topp ko tamit. foofu la benn kii damay wax ci projet boobu lenn sax dinaa ci waxaat mooy. lu mu mënta comprendre pendant dix ans ngay prôné pour un projet pour un projet j'ai un projet de la solution pour les Sénégalais nga toog à ma grande surprise ñu ne la le PSE bi moom mooy continuer ba pare nga toogaat ne projet bi ñu ngi ci nekk di bind xam nga dèjà da nga ne bind nañ ko ay kàngama ci waxtaan déggoo li mu wax nee na gaa yaa ngi ci bind ah, pareegul yow kon non non projet veut dire que ne lii pareegul fait sénégalais yi sénégalais yi dama bëgg ñu ñu yeewu ci nax gi ñeen nax dafa ci côté diine ji ci côté politique ci trois mois yi nii non non waxuma ci tur maam da bëgg ma wax sama gisin ci trois mois eggali dinaa ñëw foofu waaw dama ne dama bëgg senegal yeew nax gi ñeen di nax ci politique leen koy nax ci wàllum diine dafa bëri yaaraamaar fii la jóg créer seen mouvement de yaaraamaar waa ji na dem Ablaye Wade na dem créer ko créer ko nekk ci di xeex ah di xeex boobu di jóge fi te yaaraamaar mënut a génn ci mbedd mi dajale dix personnes ci mbedd bu ñu oote woon manifestation mënuñu am sa deux personnes yu génn à part ñoom ñu membre yi est-ce comprendre nga ñu jógewaat fii kii tëb naan la projet projet projet di vanté wu pendant combien d'années de projet ñëw indiwoo projet ñëw toog ne projet bi ñi ñaa ngi ci di liggéey kon li nga doon wax pendant les dix lan la woon sama question fa lay ñëwee boo doon euh, def sa point de ba boo doon jox sa point de vue ci 100 jours yi. Mhm. yow lan nga ciy wax. xam nga problème bi foofu nag. Mhm. dinaa dawal yërmaane tuuti parce que on peut pas on peut pas semer labourer et récolter en même temps mhm. est que dégg nga ma. loolu mënut xam nga loolu mënut a nekk. 3 mois kenn mënu ci def bilan. kenn mënu ci def taxaw na leen lii ñii lañ leen def ñii lañ parce que déjà ils ne sont pas encore majorité à l'Assemblée mm-hmm. donc am na ci yoo xam ne pour ñu mun koo changer fokk ay ay loi ñoo koy jàll pour ñu mun koo changer mais dafa ne Olof Ndiaye nag am na loo xam ne wax na ko muy cin bu naree neex mm-hmm. bu baxee xeeñ ñoom daa am lu ñu fi waxoon ne buñ toogee post yi ay appel à candidature lay doon te Ousmane Sonko taxaw na ne leen fii ku fi ñëw yaakaar ne poste moo la fi indi demal nga toogeewaat tey gis nañ la coalition de Diomaye ñi ñi ci nekkoon mooy noonu démb mi kese ñoo ci te ñooñ ñoo am yenn poste yi. mais bu dee noonu démb yi tamit dañoo am compétence boobu tamit. kon kañ ñoom waruñu woon wax waruñu woon taxaw fii di wax ay euh, comment dirais ay ay waxu rupture ay waxu appel à candidature affaire yi ma ne bëri na nekk biir Pastef am ay am ay am ay compétence yoo xam ne nommé leen. yaanaa turam man j'ai un ami boo xam ne bëgguma wax turam parce que day nuru damay def promotion mhm. Pastef la nekk sama promotion noonu jàngatoo c'est un diplômé mais nommé ko tous ñu jël ne nañ nommé ku ci wax ñu nommé la Dame Mbodj fii la wax wax wax coow ñu jël ko nommé ko te Cheikh Omar Diagne pour te dire li bi ñu ministre xaw ma lan chargé des grands moyens du palais mhm. am na ay ay ay comment dire ay ay ay militants Pastef yoo xam ne lu ñu daj ngir Pastef Cheikh Omar Diagne daju ko ngir Pastef te gis nga lañ ko jox grand moyen des palais grand moyen du palais lañ ko jox te c'est pas un universitaire Cheikh Omar Diagne boo demee Google boo bindee les diplômes université de Cheikh Omar Diagne doo fa fekk dara il diplômé de l'université kenn mënu wax ki yow soutenir thèse wala xam naa yàgg Cheikh Omar Diagne moom c'est une longue histoire waaw loolu moom temps bi nag moo ñu xaw a tënk euh, Mbacké Ndiaye <laughs> ñu bàyyi la rek nga wax sa dernier mot sama dernier mot ci. émission bi parce que dañuy tàggoo dañuy. d'abord fi may njëkk a terminer mooy dama leen di ñaanal quoi dama ñaan yàlla télé eh, évidence waa TV dem doon télé bu mag. ñu koy seetaan xam nga. may toog Kaolack fële di commenter. amiin yónnee message loolu laa leen di njëkk a ñaanal tamit di ñaanal nguur bu bees tamit gaal kenn du ci dugg. di ñaan yàlla gaal gi suux ñoom ñoo ko doon def ñoom passé ñoo doon nekk ci gaal gi di ñaan mu suux mais ñu ñu nekkul ci gaal yi ñun ñu nekk ci gaal ñu ñun suñoo ñaan mu suux donc ma ñaan gaal gi suux damay ñaan ñoom ñu am réussite. xam nga te ñu am benn politique boo xam ne pour la jeunesse sénégalaise parce que jeunes yi sonn nañ ndaw ñi sonn nañ. te di lancer waale appel sama mouvement bi may waaj a créer ak Kaolack xel mooy nit booy ñëw fekk si ma booy Kaolack fekk si ma ñu jëlee fa. waaw waaw incha allah bu ma demee Kaolack il verra bien le jour. pour jëlee fa maire bi nga xam ne dafaa nekk. te nañ moytu Sénégal le vote émotif ay waa ji na dem Serigne Boubou looloo ñu ci dal fu mu toll nii Kaolack na dem rek du ma wax majorité bi mais du ma wax euh, ñëpp mais damay wax majorité bi bokk du ñoo gis sëriñ boobu dafa war a dem. a dem quoi ah, waa Kaolack euh, bëgguñu ko sëriñ. du ma wax waa Kaolack de parce que su ma nee waa Kaolack am na ñu far ak sëriñ boobu. Mhm. mun nañ génn fi di ma tontu. Mhm. dama ne mhm. ma ñi ëpp doole ci Kaolack waaye. dañu ànd duñu moom parce que daa am loo xam dañu ko jaayoon comme ñii li ñu jaayoon rek. jaay ñu benn affaire ñëw gisaguñ dara comprendre sëriñ boobu daa am lu ñuy affaire ndongo daara affaire de islam loolu laa bëgg mu génn ci xelu xasaay rek dara ñoru leen seen intérêt bopp moo leen yor te li may waxaat li ma li ma wax sànq laay rappelé en politique il n'y ni ni ni démocrate ni républicain il y a ceux qui gagnent et ceux te booy xool ñi perte jeunes yi ñoo perte ñoom gañe ne na booy yeew te ñëw fekk sama mouvement bi may créé ak Kaolack xel mooy nit ñu fexe fa jëlee fa sëriñ boobu. Ah, espérons que sa mouvement bi di nga am li nga ci bëgg. kontaan nañ ci teewaay bi nga teew fii ci suñu plateau bët set. Mhm. di la jaajëfal di la wax boo demee nga nuyu ñu waa Kaolack. doyen ñu bàyyi la nga. waaw xanaa rafetlu jotaay bi rek di jox nit ñi rendez-vous semaine prochaine incha Abdourahmane Sy waaw même la mais kon xam naa ma tàggu sëñ Mbacke Ndiaye moom mi ne xel mooy nit na gars yi ñëw si mouvement am day politique ba pare ne en a pas gagnant ni de perdant non non waxuma loolu dama ne dama ne en politique y a ceux qui gagnent en politique y a ni démocrate ni patriote ni républicain y a pas gagnant ni de perdant y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent mhm. mais yow léegi y a ceux qui gagnent et ceux yaa ngi dégg yow ban ban nga bëgg doon man ci ñi nëbbu ma ko. waaw mais bu la benn mouvement mouvement politique. waaw benn ndaw topp. waaw <laughs> ma dama leen di oo ci dëgg rek. waaw <laughs> nañ ko moom Abdourahmane Sy ak suñu doyen suñu invité tamit ñu ngi koy remercier di remercier waa régie ñi nga xamante ne ñoo féete ci ginnaaw yéen mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal ci topp bi ngeen ñu topp di leen ñaan aussi ngeen di abonné di mën a am suñu ay programme à chaque fois ci Evidence TV di leen wax bon week-end merci. merci.